de sécurité de mon pays dama mës gëm la démocratie et l'état de droit donc du man maay bañ lépp loo xamante ni dafa tolloo ak loolu waaye nag képp koo xam ne yaakaar nga ni mën nga ma xoxatal mbaa nga tiital ma ba tax ma bàyyi ki ma wóolu man muy son excellence monsieur le président Macky Sall ah ndax nga sa bopp nag ndax nag Macky Sall laa àndal. mais man lan le dossier suit son cours. jërëjëf kon ñu koy gërëm bu baax. Euh, Sylla euh, ki ñu doon xaar nag di. Euh, beaucoup la régie jaajëfal bu baax a baax alburax mi nga xamante ni moo ñu fa euh, teewaloon ngoone dégg nga ay kàddoom wax na ni musul euh, euh, ñàkk bañ a def passation de service. waaw d'abord un républicain moom mooy koo xam ne même bu fekkee da ngaa démissionné doo toog di xaar ñu lay laaj li nga xam moom mooy sa PV bi nga war a defee passation de service. bu la jàppale date passation de service da ngay dem da ngay dem. c'est le minimum sax. un républicain bu ne danga nga gëm président Macky Sall da ngay ànd ak moom génn dëkk bi. parce que président Macky Sall nekkatu fi. xam nga intimidation amul. fii kenn intimidé wu fi kenn bu ñu doon intimidé du moom mii la ñuy intimidé parce que moom amul lenn loo xam ne rafetal ay boo xam mun na ko def ci état bu Sénégal. xam nga lu ko wane. tey ba muy dem fa nga xam ne moom mooy fa mu doon dem wuy ji. gisoo fa waa APR yi muy wax. les têtes ñi muy remercier gisoo leen ñu ànd ak ñoom. fii convocation bu daan am ku ne xam nga yow mi mama bu la convoqué tey ñun ñii ñëpp bu fekkee say bokk la ñu ànd ak yow dont duñu dugg waaye xam nga kan la àndal balaa ñu ñëw ci loolu kii la àndal kii déglul bu baax lii géwélu juddu nit ñi ana waa appel yi muy remercier ana président Macky Sall la xam nga tam fa ñu nekk di fawee suñu xel yi fii intimidé ñu fi kenn tooñuñu fi kenn ñuwuñu kenn dañ lay xoqatal parce que moom bu ñu koy intimidé tal ci ban base lañ koy intimidé moom dafa mën a woote ndaje euh, boo xam ne dana dana am lu muy trouble à l'ordre public d'autant plus que woo nañ la sañoo bañ a dem force dangay dem boo dem dañ lay jël si ah loolu mooy intimidation ñu daan intimider mooy xam nga ne mooy ñii ñu daan fekk seen kër mhm. xañ leen seen njaboot yóbbu leen te duñ leen sax may temps ñuy poster wala ñuy bind wala ñu naan l'intimidation ne passera pas mhm. yow ñu woo la nga defal sa bopp affiche go gaynde di go mel ne ku jëm ca ca làmb ja wala ku jëm ci match ba bu la neexee tey nga taxaw parce que da nga jóge ci les forces de l'ordre les forces de défense et ku jàkkaarloo ñoom ba bañoon da ngay nangu mhm. amul pexe bañ a bañ passation de service par force la koy def parce que dañ ko joxoon poste dañ ko fal mhm. moom nee na moo démissionné parce que la mu ca teg ñëpp dégg nañ ko keneen moo fa nekk day dem defar PV ba la mu liggéeyoon mu def ko état des lieux jox ko contrat di kooku doxal ki ko faloon nag moom dem na que mu ànd ak moom wala mu ñàkk ànd moom moom la engagé kenn du ko ne bul ànd ak kenn bu ko neexee mu nekk républicain jusqu'à la fin mhm. président Macky Sall la àndaloon d'accord nañ ci mais bu ñu jël mbir mi di ko àndee foo xam ne nekku fa tey la ko war bu ko defoon kenn ko convoqué ba muy dem ñaata passation de service moo fi am bi fi état bi nekk ak léegi ñaar moo ci am muy bosam ak bosu ko ngay tudd fii ci cité kër góor gi mhm. gendarmerie moo mujjee ñëw mu wax la muy wax dugg ci otom def déclaration dem kër man dama am lu ma gëm ak républicain loolu du ay jëf du ay wax ay jëf moo koy moo koy moo moo koy wane mhm. passation de service nag par force day am ñu war a soo ba léegi nga ñu toog loola di la laaj ngay tontu xale yooyu ku ñu xool nga tontu major Kandja fa nekk pendant sept heures d'audition bu ñu bu ñu fooyee suñu xel di di di yablu nit yi boo fa demoon tam bu ñu la fa téyee kenn mënu ci dara mhm. yoon moo la soxla yoon moo la woo da ngay wuy ji fii ku yoon woo nga wuy te moom sax ñoom dañoo seet dafa seet ci ñoom ñoo ko fi doon wax sax nag force restera à la ak ku yoon nga ko mës a déggee ah, ma ne ko ak boole koog naan ku yoon woo dangaa war a wuy ji mbaa ñu jëli la ñoom ñoo ko fi doon wax noonu ah wax dëgg dafa mel ni kat benn personnalité wala koo xamante ni ku am base politique la wala ku tekki dara ci réew mu taxaw di wax. oui pas compris xam nga sax man d'accord <laughs> tekki na dara ci réew mi nee ma ndax lan. waaw amoon na ndombal tànk. waaw. Ah, ah, ndax dégg ma saint bi. gisoon naa bu président Macky Sall di ñëw ci la defee woon ñaari muso yéeg ci Jakarta ba dem naan président ñëw na <laughs> donc foofu gisoon naa ko naam ñoom ñëpp mobilisé woon euh, kii andi Salma andi maman andi kii andi keneen andi parce que loolu moo nekkaan affaire de politique ci benn Bokk Yaakaar mm-hmm. mais tey nag bu loolu jeexee ba loolu dem beneen régime bu bees moo fi nekk yow da amoon ndombo tànk nga ne yow yaay dangaa doyal doon nga bëgg démission suñu la foog nga xaar xaw ma lan mat ak lan ak man loolu mat na mm-hmm. démissionné nga mm-hmm. da ngay ñëw def passation de service boo ko mm-hmm. deful dañ lay woo kenn intimidé wu la y a pas d'intimidation force restera à la loi ci réew mi li ma bëggoon a wax fooy moom en fait mi ngi woote être benn républicaine quand tu yow république maanaam yow da nga war a nekk koo xamante ne da ngay topp yoon waroo xaar tey ñu ñaar sa loxo pour wax la ne la ñëwal defi passation de service lan moo tax moom muy accepter ça comme ni ko euh, ngoone waxee moom ak keneen ki rek koo xamante ne tey ji il a fallu que force de l'ordre yi débarqué foofu pour ñu mën koo def pourquoi ça alors dañ leen forcer républicain du xaar loolu en tout cas jamono ji elle est obligée euh, ngir def boobu les passation de euh, service Mati ginnaaw loolee opération de déguerpissement yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ñi di marchand ambulant yi ñi ngi artu waa effectivement ñoom sax dàqu ñu euh, aljuma bii ñu jëm mama organiser benn toogaayu ñaxtu boo xamante ni euh, lu ñuy lu leen gën a naqari nag euh, ci wàllum déguerpissement yi mooy maanaam kumba am nday ak kumba amul nday bi am ci déguerpissement yi c'est-à-dire que ñoom li ñu nemmeeku mooy képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci diwaanu Dakar Plateau te nekk koo xam ne da nga faree ak maire bi fa nekk di Alioune Ndoye nekk maire boo xam ne PS la bokk Euh, bokk ci benn bokk yaakaar euh, donc euh, boo faree ak moom élément am yi suñuy ñëw sax pour dëgër bii nii lan lay rombee dañ lay tëb dun la laal dun la def dara waaye suñ gisee que ni daal yow yor nga bracelet bi wala nga bokkoon si ñi nga xam ne yéen yaa ngi doon ñaxtu ci euh, doxalinu dëkk bi ni mu meloon ay temps bu ñëwee duñ loo jox sax avertissement maanaam dañ lay bu buubaale say bagage yëpp jël ko yóbbu parfois sax pour nga jote si day nekk problème léegi nag ñoom neen danoo sonn ci mbir boobu noonu sonn si situation boobu nag moo tax ñu ne ñoom fii ak euh, aljuma bi di ñëw bu leen euh, Euh, képp koo xam ne fare nga ci nguur gi euh, te nga euh, bokk ci domaine de compétence bi nga xam ne fa leen féete mi wàllum commerce mu nekk premier ministre wala mu nekk seen ministre de tutelle di Serigne Gueye Diop recevoir leen ñëw wax ak ñoom ndax ñoom nee nañ am nañ ay solution ndax ñoom buñ sañoon duñu lal ci mbedd mi am na solution yoo xam mën nañ koo teg ngir ñu mën leen caser ñu mën a dem liggéey yi waaye danoo soxla état bi accompagner leen waaye nag bu fekkee lii dafa nara a continuer moom ñoom aljuma bii di ñëw dinañ am toogaayu ñaxtu ci digg Ndakaaru Njaay mhm. kon seulement mu mel ni marchand ambulant yi décidé nañ ginnaaw euh, kàddu yi nga xamante ni mat yi dégtal nañu ko. Mhm. dafa am ñu ñuy dégër piir ak ñu ñu fay bàyyi. oui en tout cas man affaire u yi dama yàgg gëm ni wàllum politique da cee da cee rax parce que. Mhm. par exemple comme kaawu Alioune Ndoye mi ñu mi ñu joxe lii depuis combien de temps mi ngi fi depuis des années mi ngi fi mm-hmm. euh, fii ci Dakar Plateau pourquoi attendre aujourd'hui pour mën a déguerpir lan lañ ci jublu mm-hmm. ndax euh, jaxase Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ne ñoo di ndaw ñi parce que nag bu ñuy wax que mm-hmm. euh, Bassirou Diomaye Faye dafa gagné à 54 pour cent on que jeunes yi dañ cee am benn apport bu ama am solo rawatina ñi nga xamante ne ñoo nekk ci mbedd bi des marchands ambulants yi comme ni ñu ko waxee rek d'accorduñu tey pour Sénégal am benn anarchie mais on sait que Sénégal dafa boo jëlee nit fenn war nga koo mën a xëy na créer benn ay paramètres yoo xamante ni dina ko yombal ngir mu daal di am foo xamante ni fa lay xëy ut loo xamante ni fa lay yóbbu moom lay yóbbu euh, ñi nga xamante ni ñoo di njabootam donc oh, j'ai je me toujours dit que lii am na benn euh, manipulation politique boo xamante ni moo nekk si ginnaaw surtout venant de euh, du maire Alioune question boobu laa posé woon lu tax mu xaar tey jii sachant que ñi nga xamante ni ñoo di waa Dakar Plateau ak maire Colobane bi aussi même appréhension boobu noonu laa amoon parce que waa Colobane yàggoon nañ ne ñoo di marchand ambulant ak tablier pourquoi mm-hmm. attendre aujourd'hui pour def ko donc mm-hmm. tey jii ñi nga xamante ne ñoo di ambulant yi Ousmane Sonko defoon na fa benn mm-hmm. descente foofu ci Colobane donc je pense que ñoom ñi nga xamante ne ñooy autorité compétente yi bu ñu dégloo ñi dinañ jël la mesure idoine mais ce qui est sûr mooy mbirum politique moom war nañ ko dissocier